bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb ñu ngi leen di jëf jaajëfal bu baax Baye Jili mu ngi leen di kontaanee mbokk yi ci ànd bu rafet bi nga xamante ni yéen a ngi koy ànd ak wasaare làmb mbokk yi gis nañ commentaire yi gis nañ j'aime gis ngeen gis nañ partager yi ngeen di partager émission wasaare làmb sëñ Bas gis ga sama caméraman la ngay liggéey mu ngi ñëw di ruube di ko sotti ndox mbokk yi ñu war lépp c'est la famille mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax waaye di jaajëfal jàmbaar production mbokk yi ñoo ñu woo fële ci arène nationale doxoon ci diggante franc xale bi di soq li ñu gën a neex mooy dañu jaay combat bi di félicité bu baax a baax a baax soq. ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni def na ko ci combat bi mais di félicité bu baax a baax Franc moom it ci liggéey bu rafet bi nga xamante ne def nañ ko ci combat bi lii la ñuy séentu ci ñaari mbëri mbokk yi bu ngeen lekkee avance jàmbur da ngeen di jaay komba bi ci nu ngeen koy jaayee mooy ngeen disponible ngeen am disponibilité bu toll ni fu leen presse bi soxla ngeen mën a génn ngir promoteur bi mën ci gis boppam mbokk yi gis ngeen bi ñu demee kër soq Sokh génn bi mu génn këram saafante bi mu saafanteeg waa ay mbokkam ni ko ay supporteram gisee cofeel bi ñu am ci moom Sokh yëngal wane boppam ci làmb wane ni tey bis bii dama ko bëgg mbokk yi nga gis Ama Baldé ñëw soutenir ko nga gis booy Niang ñëw soutenir ko frère am Eumeu Sène ñëw soutenir ko te loolu la ñuy xaar ci pikin yéen ñi bokk teen yéenay laxasoo goj mais na leer ni yéen ñi dëkk Pikine yéen ñëpp ku ci nekk boo jógee flambeau pikin ngay yëkkati kon dafa jot ngeen bokk ndey bokk baay ñi nga xamante ne ay waxkat lañ wala ñi nga xamante ne dañuy nekk ci biir di yàq ñu am fu ñu yem mbokk yi loolu la ñu gis Kër Franc gis ngeen ba ñu fa demee moom it aussi gis ngeen supporters yi ni ñu génnee en masse mbokkam yi génn. ay xaritam génn njaga ñaaleem am di jàmm ñëpp génn soutenir ko bis bi du woon bis boo xamante ni kenn ci ñoom ñaar war na ko ñàkk muy Franc muy Sokh mais Franc bi mu génnee dangay xool ni kii kat jël na am na engagement ci combat bi mais am na détermination ci làmb ji mooy yaa ngi bëre ji combat boo xam ni combat capital la combat boo xamante ni tey bari na lu mu mën a jouer ci sa carrière Franc génn ba kuy dugg ci otoom ànd ak ay mbokkam jëm fële ci arène nationale ni soq génnee noonu la Franc génne mbokk yi ngeen dugg arène nationale gis nga ñaari mbër yi seen dugg si macha allah mu nekk dugg si boo xamante ne ci làmb amul kenn ku mën a wax ni diw mooy daan ku ne diwee daan rek da far parce que soq ni mu dugg si arène nationale dafa dugg si ak jël si ndamam mais Franc heure bi mu dugg si arène nationale dafa jaaxal ñu bari Franc yaakaar naa ni bi muy dugg si presque dix-sept heures et quelques jot na waaye bi mu dugg see ba wër ci géew bi ba njuug yëngu-yëngalaat xam nañ ni kii caaxaanewul bis bi mu nekk loo xamante ne vraiment lépp làmb la neex na am na ambiance amateurs yi wuy si nañ supporters yi wuy si nañ képp koo xamante ne ci njabootu làmb nga bokk kontaan nga mbokk yi dañuy def noonu rek dugg ci biir wan leen ambiance ñaari tuuti mbër yi bu ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi ay ca ñu dem mbokk yi gis ngeen tuus bi soq tuus mu wane ni tuusu jëlkatu làmb la mu wane ni tuusu ku bëgg làmb ji la mu mel ni tuusu ku am ndam ku war a am ndam ci làmbam la waaye mbokk yi gis ngeen tuusu franc moom it aussi mu tuus tuus bu bu nekk tuus bu sax tuus bu dëggu mais ci ñaari tuus ñi nga xamante ni yàlla da leen a may xam-xam ci wàllu làmb am na loo xamante ni bu ko mbër defee ci biir tuusam dangay xam ni mbër mi pare na pour ñàkk combat wala siiñ la buy wane ni kii dafay ñàkk làmb ji soq siiñ boobu am na ko ci tuusam mais ñu bari ci làmb xëy na dañu koy def ci ci ci xalaat ci njort ni mën na am wala njort ni mënula am bu leen fàtte bis bi Issa Pouye doon bëreek Modou dafa faxastalu daanu daanu bu rëy ci stade bi ñu bari ci làmb ji nee nañ signe boobu suñu defet la soq faxastalu na ci ci ci côté boobu mooy genre miir boobu faxastalu na ci ba nara ba presque daanu na parce que dafa samp loxoom te faxastalu ñu bari ci làmb dañu koy bañ faxastalu daanu si defet la ci ci làmb waaye loolu dafa tax soq jóg wana ni loolu du dara mais signe la mbokk yi loolu yëpp dinañ ci ñëw ci combat yi nga xamante ni jot na fa am mbokk yi dañuy dem ci combat yi nga xamante ni combat yu neex la doxoon ci diggante Niang Ballo ak Guy Manko su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi mbokki combat bu neex combat bu am xeex am bëre am ambiance nañ leen dem ci combat Niang Ballo Guy Manko dellu si waat plateau bi ay ca ñu dem ak ñang mbaalo ñang mbaalo moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu ñuul li guy manko ngemb lu ruus jàkkaarloog yow ndaysaan ñang mbaalo guy manko ndaysaan xeex na dor na guy manko dor na ñang mbaalo dóor na ko dóor na ko dóor na ko katapi wala déet dóor na ko ma ngay dóor ngay dóor ma ngay dóor ngay dóor ñang mbaalo ngay dóor ndeysaan ñang mbaalo eh, jeexagul wala déet wala déet wala déet guy manko ñang mbaalo ña ngay xeex ñang lu mu dopp na xeex bi daa bëgg a xeex moom ñang mbaalo daa bëgg a xeex ñang moytul guy ñang ko jàpp combat xale la ñaari xale ñang mbaalo guy manko ndaysaan ñang mbaalo guy manko ñang mbaalo faqat na ko guy manko ñang mbaalo ñang mbaalo ngay bëre ñang attention mën nga am surprise ci guy manko ndax ndaanaan la daa mën a ma ngay gën a seere ñang mbaalo guy maa ngi koy yëkkati ñang mbaalo ngay dóor guy ngay yëkkati ñang mbaalo ngay dóor guy ngay njëkkati guy yëkkati na ñang mbaalo daan na mbaalo daan guy maa ngi ko ñang mbaalo daan guy ñang ko ñang mbaalo bi ma ngay xeex laa ilaaha illallaah gis ngeen combat bi doxoon ci diggante Niang Ballo ak Guy Manko mu nekk combat boo xamante ne ñaari xale lañ mu doxoon ci diggante dër bi Parcelles ak Pikine ki nekk ikiri bàcc ci seeraas ki nekk ikiri zos dóor dóoraat muy Niang Ballo ñu bëre ci biir wuure bi ñu wuure Niang Ballo daan kii di Guy Manko jël bu amul benn werante première action bi Niang Ballo ci yow lañuy ñëw première action bi làmb ji mënoon naa jeex ndax mbër am na foo koy dóoree ba ngeen yegg fenn fi foofu bëree rek moo fa xaj xeex amatu fa yoon ndax mënoo jël guy mànkoo suruxal ko mu nekk ci sa suuf nga bëgg di dóor ay uppercut ci suuf pour mu daanu loolu mënul nekk rawatina kott bi nga ko kott seen normal arbitre bi àtte ndax kott bokkul ci làmb te danga ko kott presque xoj nga ko di ko dóor bi arbitre bi àttee da ngaa yaakaar ni jël dafa am nga daw mais woowaat nañ la ngeen bëre ci biir bëre bi nga bëriwaat ak moom ba daan ko te combat bi amaana ñu ngi ñu ngi encouragé guy manko guy manko ñang mbaalo daf laa xaw a sàcc doole c'est normal daf la xaw a sàcc doole te yow it ci situation yi nga jógee deel xoolaat say adversaires yi ngay jël ñang def na trois combats am na deux victoires benn défaite te it fi ñu koy xaar ci làmb vraiment na gën a liggéeyaat ñang liggéeyaatal bu baax a baax baax ci wàllu làmb liggéeyaatal bu baax ba pare làmb du du fiñ ko teg du ay du affaire de de de de de furi di jaay sañ-sañ jaay ki làmb xel sa adversaire mën nga koo mën fuuf jaay ko xel ba daan ko mën na laa mën fuuf nga jaay ko xel ba daan ko loolu lu mat a bàyyi xel la mbokk yi ñu dem ci beneen combat bi dox ci diggante Ibou Afia ak Thiatou Piol bi mu nekk komba boo xamante ni ñaari xale yi vraiment wane nañ seen bopp ci làmb ay ca ñu dem xool ko te dellu siwaat ci plateau bi. arbitre baa ngi wax ak ñaari mbëri diggante Ibou Afia ak Caatu Piyol. Caatu Piyol. mbokk yi Caatu Piyol bi moo la woon ginnaaw. ak Ibou Afia Caatu Piyol moo ñu woon ginnaaw. Caatu Piyol jiital tànk na. demee nañu wet ñoom ñaar. gis naa différence de poids jiital tànk càmmoñ. dañoo nar a xeex Caatu Piyol moo ëpp. jàppante waaye ci bëri lay mujj. Ibou Afia Caatu Piyol bi. Caatu Piyol nga ko sëkkatal ba nga jeexal bëre bi. Ibou Afia Caatu Piyol bi. ña ngay xeex. door na ko kubu dal sentiir ko. baat ak tontu wala déet. Ibou Afia taf na ko. taf eh, eh, na eh. ko. da ngay bëre roof na ko galgal mbot xatar bi Ibou Afia bay kat la rëcc na tegal na ko sukar bi ko delloo si daan na ko piel daan na caatu piel mais Ibou Afia naanaan la Ibou Afia daan na caatu piel jël bi rey na Ibou Afia daan na caatu piel bi mais différence de poids am na xale bi daan na loxo ba mu laxas loxo loxo ba ko ci génne ak consulté na ay jugeem ndomba ba mu ci baat na fii ak toogoo arbitre bi du sifflé ak bi nee na coach toogal wax naa ñaari mbari sifflé na mbokk yi arbitre bi na Anaconda réparé Anaconda moo la woon dañoo daw rek jàppante ndeysaan réparé Papa Kane Anaconda Père Birahim Ndiaye ma koy ak wér ndaysaan formé ay xale yor ay xale di leen jàppale ci làmb di leen tàggat daan na ko laa ilaaha illallaah eh eh eh, oh, eh Ibrahima Jeli bi Anaconda daan na réparé bu gaaw mbokk gis ngeen combat bi dox ci diggante Ibou Afia ak Thiatou Piyol bi Thiatou Piyol bi vraiment maa ngi lay encouragé bi nga simmee ko gis nañ ni vraiment état de forme bu jaari yoon moom nga am liggéey nga ci komba bi am nga doole vraiment te li te daj nga ay coono mais danga nga xale boo xamante ni damaa njort ni da koo xam Caatu Piyol bi danga ngaa koo xamante ni yaakaar naa ni da nga koo xamul muy Ibou Afia ndaanaan la ci làmb ndax boo xoolee ni mu bëreeg yow lu ci baree bare da nga ko bàyyi combat bi moom mu jël komba bi bëreeg yow ci feem ba daan la. mbokk yi ñu ñëwaat ci beneen combat bu dox ci diggante réparé ak xale bi di Anaconda réparé ndaanaan la ci làmb albarka kay la mujjee daan fële ca stade Jom Iba Mar waaye gis nga bi mu ñëwee dangaa jël koo xamante ni damaa yaakaar ni xamoo ko muy Anaconda anakonda dafa tardé ci làmb Anaconda dafa am lu mu manqué woon ci wàllu làmb te dafa nekk ci écurie boo xamante ni ka fa nekk jiite écurie ba muy suñu papa père Birahim Ndiaye bu ko déggalee mun naa am lu ne ci làmb ci xarañte ci déggal say mbokk ci fonk say ñaari waaju ci bañ a war moom loolu lay conseillé mbëri boo warut fonk say ñaari waajur respecter sa entraînement fonk say mbokk lu ne ci làmb mun nga ko am te wane na ko boo gisee xarañte bi mu daanee réparé daan na réparé ba réparé tëdd te xamul lu ko daan mais félicitation Anaconda loxo bi la ko solee yootu deuxième pied tànk réparé bi réparé dafa yaakaar da koy tegal siis tegalu ko siis daf ko yootu ci deuxième pied bi kal ko fa ànd ak moom accompagner ko daan ko jël bu rëy Anaconda bàyyi leen ko xel ci làmb mbokk yi ku mënul daan ci làmb amut te champion la ci làmb mu ngi def ay preuve war naa mën a bëre ku ne dégg naa mu ne caatu daaw dafaal combat bu neex waaye mbokk yi làmb askanu làmb bëgguñu ko léegi dañoo bëgg ngeen dem ba ci kaw ndax combat boobu yaakaar naa ni noo njar ndéem la combat boobu jar na lu ne ci wàllu làmb ñaari staff mbër yi laay waxal staff Anaconda staff caatu daaw dafaal bu leen nangu mukk combat boobu ñu tegu ko léegi bu leen ko nangu promoteur bu leen woo bañ leen maa leen ko wax bañ leen promoteur yi dañoo bari pexe dañ leen fay xaalis bu dee pour bëgg ko combat boobu du combat wu ren déedéet du combat wu déwén déedéet combat la ci kanam te lu yónni yàgg yàgg daa bawul dara mbokk yi di leen jaajëfal bu baax dañuy ñëw ci combat spécial bi dox ci diggante Bébé Bismi ak xale bii di euh, waaye dimbali ma euh, Baba Jaxal ndaysaan wëndëng bi mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex combat la boo xamante ni séntu woon nañ ci lu bari mbokki su ko defee ñu dellu siwaat ci grand combat bi ay ca ñu dem ci bébé bismi ak baaba jaxal bébé bismi moom nga jàkkaar baaba jaxal moo la wan ginnaaw bébé bismi dóor na ko baaba jaxal jàpp na ko lu mu nar yéen nañ saaku yi ñëwaat nañu bébé bismi mii daa décidé de Bébé Bismi daa décidé de Baba Diakhal am na day am deux avertissement ginnaaw Baba Diakhal jokkaas na ma ngay dóor Bébé Bismi jël na ko ma ngay dóor Bébé Bismi dóor na Baba Diakhal Bébé Bismi kaawo Bébé Bismi Baba Diakhal plaqué na ko jege nañ saaku yi Baba Diakhal Bébé Bismi mbokk yi combat bu garaaw avertissement Bébé Bismi Baba Jaxal jiital tànk di joor Bébé Bismi tànk di joor jàppante nañ mbëkk laa ilaaha illallaah Baba Jaxal ñàkk na combat Jaxal ñàkk na combat Jaxal ñàkk na combat bi waaw waaw da koo mbëkk dañ koy disqualifié mbëkk amul ci mbëkk amul ci mbëkk amul ci làmb wala déet avertissement mbëkk jeex na Baba Jaxal ñàkk na Baba Jaxal ñàkk na Baba Jaxal du ko mbëkk Baba Jaxal ñàkk na combat bi Bébé Bismi li ngay nar mooy sànni loxo moom Bébé Bismi eh boy ay waay ay waay ay waay ay waay lii ñaaw na lii ñaaw na lii ñaaw na ay waay xale yi lii ñaaw na il faut être sportif les enfants li baaxul lii oh, gis ngeen li xew ci diggante Bébé Bismi ak Baba Jaxal Baba Jaxal ñàkk na combat bi te xamul lu ko ko ñàkkuloo dëgg la mbokk yi mbëkk am na ci làmb ji Aba Jaxal dafa mbëkk Bébé Bismi mbëkk na ko te xëy na prêté wu ci sax attention di mbëkk na Bébé Bismi ndax yaram bi day tànk mais Jaxal vraiment ci biir combat bi dañu gis ni Bébé Bismi dalaa sàcc doole taay bi ak doole bi ndax Bébé Bismi dafa mel ni combat bi teg na ko fu musul teg benn komba Bébé Bismi ni nga bëree noonu la ñu xamee woon Bébé Bismi arbitre daan prip fu adversaire bi nekk nga fekk ko fa dal ci kawam xeex ak moom sa ko bëre loolu lañ doon xaar ci yow te moom la gis nga indil ko Baba Jaxal Baba Jaxal damaa njort ni dangaa jël Bébé Bismi te xamoo ko malgré nag am na ay défaite ñi mu bëreel ci làmb daan nañu ko mais bu leen fàtte ni ndaanaan la ci wàllu làmb moo Papa Boy Djiné bi ñuy bëree stratégie la bëree ba daan ko Bébé Bismi mbër bu intelligent la supporter Baba Jaxal yi gis nañ ñu damm saisi sànni loolu bokkul ci làmb Baba Jaxal combat bi du kombam bu mujj ci làmb te arène nationale li ngeen ko def yéen supporter Baba Jaxal yi duy stade bi ba mu fees ñëw soutenir Baba Jaxal bu ngeen ñàkkoon rek ngeen génn ñibbi non dinañ leen jox meilleur supporter yi gën a fair play ci wàllu làmb te loolu lu nekk mënoon ngeen ko ci am teraanga bu ne mënoon nañ ko yëkkati jox ko supporter baaba Diakhali ci fair play mais li ngeen def bokkul ci sport damu saisi sànni yàq fa ngeen doon toog vraiment bàyyi leen ci xel te yéen da ngeen bokk ci làmb man bi ma gisee ngeen gunge Baba Diakhali ñëw sama yaram dafa daw xale bu ndaw ful bu mel noonu nga koy drainer ci làmp war nañ la mën a bàyyiwaat xel bu baax di ko masawu moom Baba Jaxal di jéggaluwaat bu baax a baax a baax waa CNG de lutte bi ci turu képp koo xamante ni ci njabootu làmb nga bokk Baba Jaxal xale la te làmb daf ko soxla di leen masawuwaat bu baax a baax di leen jéggalu ci li nga xamante ni jot naa xew ngeen jéggal ko ndax loolu rek lañ mën jéggalul ko tooñ nu mu rëy rëy baal ma moo ko gën a rey baal leen ko jéggal leen ko xale la daa bëgg teral ndeyam te wax na ko bi mu nekkee xale bu ndaw la bàyyam génn àdduna kon teg leen ko loxo jàppale ko mbokk yi ñu ñëw ci grand komba bi nga xamante ni moom la ñëpp doon xaar mu doxoon ci diggante soq xale bii di Franc ni leen dem ci stade ba wala ñaari mbëri ci digg géew bi wala leen siffler arbitre bi waaye ñëw ci combat bi su ko defee ñu dellu dellusiwaat plateau bi ay ca ñu dem. consulté na ay jugeem waxoon ñaari mbër yi arbitre bi laaj na leen arbitre sifflé na dimanche vingt ak Sokh dimanche dix-neuf juin Franc moo ñëwoon ginnaaw national Sokh moo jàkkaarloog ñun mbokk yi ne Franc a jàkkaar Sokh ji fa tànku càmmoñ ñu ngi lay waatoo Adiamba production moo ñu fi woo ak ah, Sokh mbokk yi Franco dina ko Sokh dëgg xam bu nar a garaaw ñoom ñaar ñoo ñoo ñaar joor Sokh ci ne tànk càmmoñ Franco na léegi Franco cokaas na baata joor na ñoom ñaar de door mu daanu mën naa am wala déet ak ah, Sokh ndeysaan a sok fokk ko paas na sànni na mu remis ko Franc door na na ngay xeex sakatal na ko dañoo nar a xeex fokk Franc ba déclenché mu remis ko fokk Franc door na ko remis mu dal Franc sok as na door na takk na ko daw na jëli ko daw na jëli ko ko faax na ko mu rëdd Franc ñu nga jàppante lam na faax na ko fokk fan na Franc Franc ñëw daw ko fokk ko ñëw wala déet dal na ko Franc mbokk yi gis ngeen combat bi doxoon ci diggante Franc ak soq ku ne yàpp na ko ku ne gunge na ko ku ne taxawu na ko pikin li ngeen waroon def yëpp def ngeen ko mbëru pikin yi li ngeen waroon def yëpp def ngeen ko Sokh li nga waroon def yëpp tamit aussi def nga ko làmb ñaari ndamay dugg waaye benn mooy génn benn bi génn Franc moo ko jël ñu koy félicité bu baax di wax ni ñi ànd ak soq nañ leen xoolaat encadrement bi xool staff bi xool ni ngeen di bëree tey dama jàppoon ni combat capital bu mel ni diggante soq ak Franc am na loo xam ne rôle soq la mais am na loo xam ne rôle encadrement bi la mooy tey ñi nga xamante ni dañoo ñëwoon ngir soutenir soq bu ñu ñëwee ni nga xamante ni noonu la ñu gisee ñi ànd ak Franc def ko toog ci sa cimmikaay concentré wu ci bis bi toog déglu moytu communication bu bari bi ci làmb dafa bokkoon ci luy doxal làmb ji parce que li ngeen waroon wax yépp wax ngeen ko làmb ji li mu laajoon mooy soq ñëw concentré wu bu bëggee yëngu sax moom mbër ngeen téye ko ngeen téye ko mbër yi nga xamante ne dañoo ñëwoon moment boobu du woon moment wu ñëw ci stade ba daw yuuxu déedéet moment boobu moment wu ñëw la baña a communication bu bari wane ni bis bi da ngeen koo bëgg dem ci soq dee ko seen ñaari kàddu ndax réeroo woo leen benn yoon xamante ngeen ngeen dee ko ñaari kàddu te ñaari kàddu yi benn la est-ce que yaa ngi ci combat bi mu ne waaw bàyyil xel li ne sa ginnaaw gérer sa combat loolu rek moo doon conseil soq mooy bàyyil xel ñi ne sa ginnaaw nekkal ci combat bi te gérer sa làmb su ko defee moom soq day xam ni mu war a gérer làmbam soq kuy bëreeg franc ku ko téeloo boppam rek yaa ko ñàkkloo combat bi combat bi du combat bu soq waroon téye boppam ci diggante ak franc mbokk yi ute gis-gis moo waral marché ba ku nekk di jaay xëy na ñu bari ci làmb bokk ma ñoom gis-gis man su ma indiwoon woon soq ci làmb ja keroog dama naan ko lu mën a xew bul daanu ndax xel mooy bari li tax doo daanu mooy Franc ñëpp xam nañ dafa am jàpp mooy mbër mu mu jàpp ci làmb mën na laa daan te ku ne xam na ni macha allah Franc dafa am fort ci làmp mooy bu la jàppee tegal la siège pois bi soq yor bu ko Franc chargé pois am pois boobu day diis c'est normal day daanu te Franc dafa chargé soq ba mu ñëw mu mel ni ku koy tegal siège sukk om bi tegal na ko siège sukk om bi jël poids moom bi mu moom boole ko poids wu soq chargé ko ko normal soq day daanu soq ni nga waroon bëree benn bëre la. mooy arbitre na nga yóbbu Franc ba ci saako yi fermer sa garde jàkkaarloo moom xeex ak moom mu bëgg xeex nga xeex mu bañ xeex nga xeex bu la jàppee nga génn saako yi ñëwaat làmb ji na nga ko ñàkkee sax par avertissement mais bul nangoo daanu ci làmb ji mais nag làmb bu erreur amul mbër mi du daanu ñuy encourager Sokh bu baax mbokk yi di féliciter Franc Franc li nga waroon def yépp ci làmb ji def nga ko gis naa nga concentré wu ci bis bi ba Papa naan la yëngul defal yëfi mbër parce que bis bi dafa am fu mu la toll te bis bu amee fu mu toll mbër ñi ànd ak mbër mi sax xëy na mën nañ koo bañ a xam ni nga bëreeg soq noonu nga def noonu nga waroon def c'est normal mu te soq nekk pied gauche nga nekk pied droite soq fu loxo gauche bi jógee lii day ubbeeku manto bi moo tax fu loxo góos bi jógee rek Franc contré na ko te bu ko dóoree day dal mu dóor ko ñaari coup coup yu dal soq loxo bi mais gauche bi boo tegee pie gauche sa main góos dafa war a jóg rek tàllalu garde lay doon joxañ dangay ngay joxañ rek bàyyi gauche bi du dóor mukk day ubbi bunt rek mais du dóor moo tax saa yow dóoree Franc yoon du dajeeg yow dóor la coup bi dal mu bëreeg yow ci biir bëre. wëreeg yow ba daan Franc félicitation bàyyi leen ko xel ci làmb ci làmb la bokk war naa mën a bëre ku ne ci làmb Franc war naa mën a bëreeg champion bu ne ci làmb jot na mu mën a bëreeg ay ndaanaan ci làmb Franc doomu dàngu combat làmb mun na ko bàyyi xel làmb ju neex la ñoom ñaar ku ci ne war naa mën a bëre Franc ak yeneen adversaires yu bare bare ci làmb combat la war naa mën a bëre ak ñoom defaat preuve am ci làmb mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ni dimance bi ñu jëm dañu jëm ci journée bu mag boo xamante ni Petit Production moo ko organisé combat bi dox ci diggante aada fas ak Coly Faye numéro 2 ñaari mbëri xas-xas loo nañ wax nañ ku ci nekk ci open press am yëngal na mbokk yi dañ leen di dégtal ñaari mbër yi rek ku ci nekk la mu dénk moroomam ci combat bi su ko defee ñu wéel waxtaan bi ay ca ñu dem. loolu bu koy wax day wax lu ko neex rek. naante du ñu yàq ñooy dalal naante waaye naante du ñu dalal. làmb ji moom xam na bu baax ba làmb la. Arafa bu mu wootee li muy wootee ba ñëw ba fii bëgg a daw daw dañuy génn ay ay liggéey. li ñu def na ndam xale da ngay daan man jàpp daan te incha allahu rabi dimanche dama daan. xam nga dañ koy dalal def taj. incha allahu rabi dimanche yàggatul dina lépp lépp leer. mbokk yi dégg ngeen ñaari mbër yi ku ci nekk xas-xas loo na ku ci nekk jaay na combat bi li ci des nag mooy dimanche incha allahu rabi ñu fas yéene jëm. arène nationale ñaari xale yi fas yéene wane seen bopp mbokk yi su ko defee lu ci bare bari ci wàllu làmb danañ leen ko dégtal ci wasaare làmb doolay jën ndox doolay woykat public waaye doolay wasaare làmb yéen suñu mbokk internet yi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf